léegi nii. nga leen fu ngeen dëkk. ñàkk ñàkk rab. nga nga ne kajatu lan. kajatu jàll. kajatu jàll. Oh. hôpital Fann gii. hôpital Fann démb. te wër ngeen ko fa loolu gisoo leen ko. xanaa dafa génn rek dem. daa génn rek waa ka ñu ne dafa génn rek jéggi tal ñu ne xamu na ko dafa feebar. Hmm. boobu léegi. ah dafa feebar ci xel. moom lu mu soloon démb ngeen di ànd. ki dootoo la sol sër bi marron la yére bi bu la musóor bi bu mu koloo kol bu marron d'accord léegi yal na ko yàlla nit jeex nag mais dafa tuuti daa tuuti mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. léegi jox ma kii sa numéro ñaata la pour ku ko gis ah soixante dix huit la waaw zéro dix sept zéro dix sept waaw seize seize waaw cinquante quatre yow noo tudd Mariama Bari Mariama Bari léegi xoolal ki ci ah? demaatal nga jox ko sa numéro boobu képp koo xam ne gis na maire bi daal na woote ci 78. 017 16 54 nga laajte doomu Mariama Bari noonu la. voilà ok mais nag mais nag euh, képp ku la woon ni la sa yaay ngi nii yónnee ma xaalis. bu ko yónnee. bu yónnee kenn boo nee tekk lee mu feeñ comme annoncé nañ ko nii lii nga gis ku ko gis dégg gis nañ maire bi tam yóbbu nañ ko ko ñoo amee ay dara wala mën soo xamal ne ki ñuy saaga la dégg ndax saaga léegi dafa jël ay tuuma di ko lal ci suñu ok merci c'est bon. yàlla sañ a jàmm waay. doy waar. bu tombalee ngay bës dafa dafa weexoon ci ay temps waaye léegi dafa bële dañ koo changé dañ doon defaraat kër gi léegi lu bële li. teg ci sa baaram rek ci loxo bi teg ci sa loxo bi. Mhm. waaw kay bësal bàyyi xëccal xëccal tëjal bësal bësal. baax na tëjal bës bës. voilà xëccal tëjal. Mhm. très bien c'est bien ça. <laughs> le sorcier. voilà. su ma ko jàngal léegi. Mhm. Euh, Alaaji. Mm. garab gi mooy gudd woo ko fi wax. ah yaa maanaam ñun sénégalais tamit Alaaji du leen rey mm. boo ko jëfandikoo bu la jigulee day nga dee boo yéegee doo wàcc. am ko ne nañu rey. dégg nga Alaaji nit nit war na tontu lii. waaw baax na dañuy xaru rek waa bàyyi leen. ah Alaaji bàyyi leen. <laughs> koo xamante ne daal yaa ngi dox la soxla woon ngay yokk puissance. Alaaji. ah waaw baax na. alaaji dañoo nekk ci dëkk boo xam ne puissance ba faf. ñenn ñi ah, ñi nag ñoo bañ seen bopp. ñenn ñi ah. lekk nañu xeetu ay buñoo ay pot ñu tëj ba tubaxkàl la ñi ci des danañu ci géej gi ñi ci des boobu ñaari lañu. waaw ñu fi ñu fi taxaw kii bàyyiwuñu. <laughs> du wàcc de. Hmm? garab gi daal xam naa ne alaaji. Hmm. damay ragal daal mu mujj soppeeku. nekk nekk saafara bu jur jàngoro. lu le ah lii nooy génnee alaaji. Hmm. foo jëm. loolu dama lay laaj. doo dem fenn de. yow daal da koy jàpp ci diggante canapé bi pliant bi rek. Euh, alaaji kii moom dimanche. liggéey liggéey daa jël marché jannatu. bu dee journaliste nga dañ lay euh, cinq wàcc nga benn sac. nga ni euh, wali voilà euh, walis ba nag moo réer képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 77 509 96 14 509 96 14 waaw kay waaw kay bokk Mara boobu hmm. léegi hmm. garab googu jox ci sama jëkkër ngir yàlla yow xam nga di nga mën a doxee sa soxla te monsieur bu génnul dootoo lekkati de baax na. Ah? Ah? baax na rek. dëkk doy waar. mais réew mi dama foog xanaa ñu feebar bari nañ de. baax na réew mi doxul wax naa la ko. ah mais yow tamit. le pays va mal. ah, ah kii tey nee na moom nañ ko ci jox ndax lundi sax la yàlla dogal. lay jël ko ah lundi. kan moo leen di fii ak weer dana wàcc. dañ ne la bu la jigul. bu demee du dikk alaaji yaa ngi imagine lu lu taxaw weer te wàcc. waaw yàlla na xel de waa lii lii baax na. mais de. yow mii bii baax sa jàmm la tamit. te ñi koy laaj. te ñi koy laaj ñëpp. te ñi koy laaj. te ñi koy laaj. alaaji xaaral ma teg premier test bi léegi. te ñi koy laaj. test bi alaaji. ah. ndaw si. nee na. waaw sëriñ ko jël. waaw maye ko. maanaam may ko benn mbokk taalibe bi. së sëñ moom ci moom ba koy maye noonu. noonu noonu la sëñ bi moom moom moom la jébbalu ca moom la jébbalu koo maye. Hmm. dégg nga loolu alaaj hmm. problème yaa ngay moo tax mënu maa wax ci tas. ah man yow seetlu ma tey tekki ndax de. ñëpp a de tekki mënu yi yëngu. man da ci am ñu ma ciy laaj yoo xamante ne man dama leen bëggul vidéo tey mënuma laa xool benn war maa dimbali ma leen ko parce que ngi tontu message yi parce que et puis laaj leen ko man gune la pardon rek <laughs> lu ngay ah, eh. ni benn problème yow de ku la ci laaj tooñ parce que ci xam ah vraiment parce que oui parce que euh léegi bu fekkente ni bii da ngay nemmeeku muy ralenti. ñu bu fekkee da bëgg def traitement nag yëg nga ni daaw ba léegi daanaka ñeenti yoon nga fi yëg sa bopp wala juróom. kooku traitement la. da ngay ak 4 5. dégg nga loolu alaay. bi daal lii daal ko toppee daal portable yi daal naa bëgg naa ci garab gi. waaw Padre. bëgg naa ci. Padre Père. Guèye Ndioro maa ngi lay siyaar sama papa Mbaye Ndiaye asek naa maa ngi lay nuyu euh, waaw kay waay di la nuyu alamdo maa États-Unis maa ngi Jaata Ndiaye dégg loolu alaaj waaw sëñ bi yëkkati ko may ko taalibeem waaw mu jur ci juróom-benni bant ñaari ñaari faatu mu des yent mu des yent yent yooyu nag daf ci am kenn koo xam ni ku góor la mhm. alaaj daal moom jàpp na doom ji dem na ba tekki mhm. faf ko ginnaaw ah yi tamit jàppale doom ji waaw ndax li ko mbokk yi meree waaw dañ ne ak fi ñu di ay ñeeño bala may sa mhm. dem jébbal boppam ab sëriñ mu mayee ko ñu ne déet waaye mu dem sëyi ca kajoor lii naqari mbokk yi jafe-jafe mi muy dund yëpp ñu war ko ginnaaw. comprendre ma li nga wax waaw kay. Ah. repeat again. waaw again. ndaw si. waaw. sëriñ ko jël. waaw may ko jëkkër. Hmm. waaw. si léeg-léeg jël ci taalibe yi may. waaw may leen. ndaw sañu yóbbu ko ca Kajoor. Mhm. waaw suñu cosaan. waaw mu dem sëy fa. waaw. am fa juróom benni bant ñaari dee mu des ñeent ñeent nag am na ca koo xam ni góor la jàpp nañ la loxoom léegi jot na digg ginnaawam maanaam ci kaw gàttal réussir na li maire yi yàlla bàyyiwu ko daal tekki na tekki na waaye nag ba mu tekkee daa wan ndeyam ginnaaw mbokk yi ko war a jàppale yi moom it tekkeegul mm-hmm. yi ko war a jàppale waaw moom yaay ji. waaw waaw ndax te moom am nañ njort bu ne mbokk yi sax. ñu ruux doom ji dañ cee. waaw waaw waaw ko njort. waaw ko laajee lu tax nag. daf moom ay mbokkam dañ ko ne. waaw li nga def ñun xamuñu ko. mooy ñun ay ñeeño bala may sëriñ. nga dem jébbal sa bopp ab sëriñ mu jël la maye la ñu ne déet waaye nga dem ca ajoor dem sëy. loolu lañ ko mere ba tax jàppale. ñu bàyyi ay mbokkam nag. ànduma ak moom na bàyyi ay mbokkam. dégg nga El Hadj ma daaneel dégg loolu. waaw. lekk sax da koy të. yu jigéen yam fa am nee na di leen yóbbu yóbbu génn ak yalawaa génne leen ci mbedd mi balaa ñuy yegg seen kaw. waaw. Mm-hmm. Ah. xanaa ay tuut tàkk lañ. Ah. Ah. tës tës tës bi tës bi dafa am juróom yoo xam ne bu ci ne. mënoon nañ koo enregistré mu expliqué. ci nekk des la mais dafa ak bëri ay incohérence la. non non non non. continué waaw moo dama ne daf bëri tas. lam doon def ci sëñ bi rek moom en tant que jigéen dem yóbbu boppam jëm ci góor lañ naan faral di gis. waaw waaw am na nag ci jigéen. waaw boobu tas waaw. fa mu doon njëkk sëy tas fa sëñ ba jël ko mayeewaat ko. waaw kooku loolu da ko war a leer. waaw. dëgg loolu dëgg. waaw. Mhm. li mu wax ci mbokk yi li mu def ba mbokk yi di ko wax. li tax doomu wàcc ko ba pare. est-ce que dem say ajoor dong la. waaw ah, moo tax man la am na incohérence parce que doom ji li tax mu woon ko ginnaaw. waaw non te si ëpp na sax juróom. parce que doom ji yoonum nekkul ci loola parce que moom mënutu la ba ñu waa Kajoor. waaye hmm. ba Kajoor Kajoor la. ban relation la war a am ak yaayam sax ba koy wadd ginnaaw nag tey nag. te war koo mën a jàppale. ku am ku am doom yu màgg màgg ba. ba réussir ci juróom benn doom maanaam ba nga caat loo yàgg na. waaw kon sëñ bi jurul juróom-ñeenti doom yi juróom-benn ah, ok moo leen jur. moo leen jur. sëñ bi da koo mayee ah daf ko maye sëñ bi rek bi de. ah ko maye. ka mu ko may moo am ak moom juróom-benn doom ñaar ñi faatu mu des ñeent. Mm-hmm. kon moom nekkatul xale sax ko am doom yu tekki kenn ah, nekkatul xale kii de nee ma ndax garab yi fa am bokk ci. mu ne ndax garab yi. jigéen bokk ci non man man gis nga man alaaji. est-ce que duñu bàyyi kese. waaw dañ koy mujj bàyyi léegi Chimère. ndaw si daal jox ñu premier ak deuxième partie ñoo jox laal la ñu juróomi minutes yi soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax baax. ñu ngi lay fay bu baax a ndax mën nañoo xam tur ak sant bi ak fan nga dëkk. waaw maa nga dëkk fële Mbacke Bari dëkk Bambey. Débe waaw Débe waaw. a xam ñu mën a xam lan moo nekkoon say tànk tey jii. waaw li nekkoon samay tànk damaa ñëwoon fii eh, ci Touba gi léegi la xasu ci sëñ Aliou Mbacke moom sëñ Fallou léegi bu ma joxee waa ji ma dem nekk fële xel kom ndaxate di fa sëy ba am fa juróom benn doom ñaan ñi làqu mu des ñett ñu jigéen ak benn bu góor bu góor gu góor góor bay la yóbbu dëkk ba naan ngir ngay wacci ko fa léegi tax na sama bokk yëpp dumóoyu ma tax na sama doom yëpp di magu juuf daal di may dumóoyu nangu maa di fa dara mën na sama yaay lu mu doon ut kajoor ba di fa sëy waaw may ñaan na te yàlla taxal Serigne Touba xam ne ndigalu sëñ bi moom ma toppan ay tànk ca xam yóbbu moon kajoor waaw samay bokk bu ma leen gisee ba màggal ba màggal la ñi ma dëkkal itam xam na ne sama doom damaa dumóoyu waaw ma di ci ñaan nañ bokk julli yëpp ñu jàppale ma te yàlla tax a sëriñ a ak ma Masamba ab xëy say day seex la Fall li saa bàyyi su ko jébbalu woon. waaw tànk caaxaan taxuma woon ne document su ma déggee bu baax. yow da nekkoon benn euh, tout tànk boo xam ne. da jëloon lépp jox ko sëriñ bi. daan ko tarbi. léegi sëriñ bi moo la jël maye la. ci ay taalibeem. nga nekk ak ay taalibeem ba am ci ñaata doom juróom-benn doom. ñaar ñu làqu. ñaar ñu làqu. léegi ku góor ki moom moo dem ba tekki. waaw jël ku góor ki yóbbu. ki ci kii tekki tey waa kër sëñ Moudou Ablaye Fall Ndar moo ma joxe woon dëkk bu naan Ndiob mu tekki ki ci des euh, moom kookee tekki tey rakkam ju jigéen ji moom la sëñ so sëñ Abdou Fatah moom soxna Fatiha di yoroon. ba ba mu làqu waaw loolu nag ci caaxaan man taxuma jóg ci Touba gi ndax ñu ma bari maa ngi toog buntu ko sëñ Mbàkke soxna loo man de maa ngi toog buntu ko sëñ Mbàkke soxna loo bëgguma tànk caaxaan moo tax ma ñëw fii nag samay bokk dama du mooy ndax boo waxee ñu ne ma nga ca jumaa ja ma nga ca def nangam a nangam lu ne nu di ko wax samay bokk di ko wax ah sama doom mere ma ci ngir sëy bi ma doon sëy kajoor moo tax bëgguma tànk ci xaar. tax ma ñëw avant ngay sëy kajoor foron sëy avant ngay sëy kajoor euh, ba dëkk bu naan njoob kese waaw daara sin mu doob lay fal ndax foofu laa doon sëy waaw xale bu nga xam ne moom moo la du yu moom moo moo tekki tey euh, bàyyi la foofu nga ko amee waaw foofu laa ko amee daare sëñ mu dab lay fa ndar laa ko amee waaw sëñ Abdou Fatah moom soxna ko moom sëñ lu mooy sëriñam waaw boobu moo nekk su premier sëy mooy bi nga bi nga amee xale boobu waaw moom moo doon sama premier sëy waaw ma am ko juróom benni doom sëñ Aliou Mbacke mii ci ma ko joxe waat ba ko saa baay dégg dañ ne Cheikh Ibrahima la yàqal waaye doomu sëñ Fallou du def ma dindi ko mm-hmm. waaw moo ma topp woon digal dem Kajoor waaw gone noonu ah. moom moom bi lay mayee waat moom xanaa yëgu ko yëgul sëy bi ko booba tuut tànk la booba mu ngi ci njoob tuut tànk la. waaw mu nga ca njoob tuut tànk la. waaw léegi mu màgg moom amul si benn information. waaw xëy na nag léegi wu ma guddi faale wu ma bëccëg même faale wuti ay nijaayam boo waxee mën na sama yaay li ma doon wut kajoor ba dafa jur ay doomam. waaw looloo tax nag. waaw looloo tax ma ñëw fii di fa di di leen ko joytu waaw yow léegi lan moo leen di Touba. ah lan moo ma indi woon Touba booba booba ba ma fa tasee damaa ñëw dem ca sëñ ba dem toog fa loolu la waaw toog nekk ci parteem dem toog ba musuma faa nekk benn tant caaxaan yoo xam ne loolu dañ ne ma ngoon daal nga dem sa néeg ma dem Kajoor nekk fa di Cheikh Ndoye moom moom moo ma jële woon ci loxo sëñ Ali Mbacke moom sëñ di ànd sëñ Maam Mor moom sëñ moom du jaxate waaw waaw léegi man nu ma comprendre mooy yow euh, sa papa wala sa waajur bu góor dafa nekkoon taalibe yow man euh, sëñ Moudou Ablaye Fall Ndar Baye moo ko seexalaan ki ñuy wax Baye Dof mbaw Baye Moussa Penn ak Baye Ndiaga ji mu jur saa baay ay doomi ndey lan ñoo doon na sëñ mu dob lay Fall Ndar ba am seen ngërëmam waaw looloo tax waaw lu ci ne daal kilifa moo may joxe ma dem topp ci ndigal rek loolu ma indi Tuubaa léegi la lu daal lu say mbokkee daal daal lay xeeb daal lay beddi waaw samay mbokk di ma xeeb ndax jumaa ji may toog bu buntu ko sëñ Mbàkke soxna loo gi may toog ak njaboot gi nga xam ne seen Aliou Mbàkke moo ma ko teg ma di fa toog ñu di ma xeeb bu ñu ñëwee sax ñu ngi ne pat am na yoo xam ne sax dañ leen di naan ndi juma ci jumaa ja waaye la ñuy wax sax doo ko dégg waaw ki nga xam ne mooy bada ñoo bokk benn baay ñu ngi bàmbe waaye li muy wax sax ma la yàlla xam doy na waaw wax na nag ba sonn na ko yow yoro sa yaay yoro sa yaay faale wun ma nga topp doomi baayam topp topp jabaram faale wu ma man maa nga nekk ci sañ ci kay rambay ya foofu laa nekk waaw sanci kay rambay ya foofu laa jóge nii ñëw nii waaw di leen ko jooytu te yàlla taxat Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Baye Góor ak sëñ ma sàmba léegi ana sa yeneen doom yi nga xam ne moom nga amee woon Kajoor euh, Kajoor waaw ñu ngi ci kër gi ñoom ñoom moom vraiment amoo ñoom benn problème déedéet ama ñoom benn problème wax dëgg yàlla ñoom ñu nag li ma demee woon Kajoor ba ñëw foofu loolu loolu leen naqari mais sa taaw bu góor bi daal moom moo la bandoone moom ma bandoone waaw du ma jox dara te bu ko ci yàlla xiiree mu la bala laa jox sa dalay gët mbaam ramaas la mbaa bi ma ñëwee teguma fenn boo waxee mu ne sama yaay li mu doon waa ji moom ci wàllu bopp moom itam war la ñu ne ko ndaw si daal di koy tas dem takki ko daaru mar naan loolu daal moom la tax na jóg fii tey waaw. léegi yow benn instant lan nga bëgg moom mu ñu. waaw waaw waaw. dañuy ñëw ci deuxième partie bi. Ah, ah. waaw kay waay waaw kay surtout Oumy Dieng baa ngi nii nag ñu koy tooñ di ko woy kere ko. waaw kay day anniversaire tey jile joyeux anniversaire waaw na ba jaanee doomu bi ne daa bo waaw kay ak euh, Manga Las Palmas waaw kay Oumy Dieng yow loo bëgg nay jàmm waaw kay mais alaaj hmm. alaaj tey tës bi tës laaj na débat de laaj bi kay débat débat sax nag ah débat de ah. mais nag man man de duma ci débat lu ah alaaj di nga ci débat nag ah euh, mani si ah uni par ko nag démb nag mami sàmb hmm. ah def nañ différence kaay ma wax la nag. laalal yéen a ko doon kiiwal fii tegal fi sa loxo fii rek. déedéet déedéet tegal tegal tegal tegal dama bëgg nga testé non fii nii fii fii wala loxo awra la loxo jigéen la. awra la awra la waaw awra la. dama la bëggoon a wan nooy gi mu nooy rek. ku ci ak laay laay dal la. waaw mais xanaa sama parfum baa ngi lay xeeñ. Oh, xeeñu ma. li may gili xeeñu la. déedéet déedéet déedéet. une part confiance. déedéet déedéet déedéet. wuy ma. yaa ngi naan boo wax si weer de. glissé gi mu glissé nii. bàyyi li ngeen di def <laughs> baax na. idi parfum faja di ko di takkoog yooyu yëpp dañ koy xere alaaji ba ci parfum gi may xew yëngu jigéen moo moo kii moo moo moo moo alaaji sama ndey alaaji yëngu jigéen waaw jigéen lu takk ci moom yëngu waaw yomb waaw loolu moo tax boo demee bay dem ci jullit mbooloo dégg nga gis nga waxuma la sax mbirum digg ak yooyu waaye gis nga yi nekk sa loxoy sax boo ko mënee dindi dindi ko parce jigéen ni muy doxee bokkul ba léegi ak góor te daal cakkas gën gën waaw kay loolu léegi nag yàlla bu la bindee noonu alaaji. Mhm. Eh, da ngay moytu yëngu. dëgg la. te yéen adduna moo mel nii rek waaye seen baat sax eh, awral kenn waru ko dégg waaw léegi nag bu ko defee. Mhm. Eh, waaye dañ ko def daal. damay ah. def nañu teranga. joxe nañ fi diw joxe fi gel. joxe fi parfum mu ne. ah Chimère jëloo sa mbuus. ah Chimère yu amoo. ah loolu jaarul nag ini parcours nag war na warut a fàtte ci beer bu dul yow tës gi du sotti amul mbuus jotoo sa mbuus jotoo mbuus loolu jaaduwul ah ini parcours déema seen talaa ngi indi bëri gi mu bëri jolof ci kan ñu ngi leen di xaar sa trek bi taalee ana foo ne Canal Plus nuyu nañ leen joyeux anniversaire à Binta Fall te Fall happy birthday hein hein Alaaji il faut que première dame bi nekk uniparco pro ah e oui ah oui ah oui ah oui loolu du yoon de ah oui moom jaaduwul ah non non non ah oui te ngay dem wàllu jëlee ci gaamu góor gu baax góor loolu jaaduwul non su ne moom bu amoon moom Diop contre naa la trop waaye da ngaa war a sa mbuus nag rëcc naa lool xanaa ñii dañoo fàtte ne Diop yor machine bi dëgg yàlla bu dul Diop du sotti di jël ko ay waay jële deuxième partie bi li ma toj ci télévision bi. wala seetaan. dama am conseil constitutionnel bu ma ko temps bi maye alaaji bu ma tojal ko sénégalais ci tas bi tey non damay ragal réew mi wàcc naa la ci gi. laa ilaha illallah ay mani. non non suba dama koy développé. la réponse là des sages. ah. ñu ni ah, ko monsieur président de la république. waaw ñu ni ko. alaaji kooku kooku dama koy yaatal après. laa ilaaha illallah ñu ko mu ni ko ñu ni ko waaye Aïda Diop cour d'appel waaye sama sœur baa ngi nii waa kay joyeux anniversaire non jodof ci kan gi moom mu ñëwee ma jox la ci uni gi nag damaa juum yóbbu naa ko sama kër waaw kay fi mu nekk nii commencé nañ koo jëfandikoo ana ko ne ci ligne bi mu ne Pape Alé ak kan kese Pape rek donc waaw kay waaw. Euh. Pape yow baa bëggoo ci garab gi. ah déedéet kii de xale bu ndaw. ba nga laajte. bilaay boo ci laajee ma gerte ma géejawaay kenn ko ah, ah géejawaay. Hmm? Ah, ah, gisuma ko de. géejawaay dëgg dëgg gisuma ko de. eh bu Ndiaye. Soye bu Ndiaye ma. Hmm. sama benn waay la boo xam ne de. alaaji day nootu ñetti catégorie am na am na lu mu am na lu mu yowoon doon ko jaay de. moytu ko. <laughs> waaye léegi mooy la dëkk. del moytu affirmation yooyu. daa di buy ma. Mm. déedéet. benn fan benn fan la jaay quantité wu mille daanaka. déedéet déedéet. xanaa xamul grand boobu doon wax naan ko daan naan naan naan kii kii mujj sax mais daf may jox appétit. waaw foofu nag géej waaye la. daa di déedéet alaaji xam nga yow alaaji lenn rek moom moo la yàq. mooy waxtaan wi bu neexee ba neex. ngeen yàq ko. waaw te te man. lu mu tëgg rax ci përëb. waaw defal ndànk rek man lu ma stressé da koo war di daw ndax man man dama leen di bégal te alaaji lu may gaañ rek lay def. alaaji baraadam day fëq ndab de. waaw waaw waaw bàyyi ko rek. bàyyi ko rek <laughs> ba ala. waaw ah, baax na léegi. ba ala ba ala. ba ala est-ce wax naa lu ay. déedéet ah kay dafa ay. Ah. parce que bëggee tuumaal. xam nga dégg waaye dañ koy jaay garab dégg. Ah. te ba léegi mënoo ban marché la. te wuy ma. waaye déglu rek. man man man man man bi ma am. li ma am géejooy lañ koy jaay moom bi mu xëysee moom bi mu xëysee bi mu déclaré alaaji nga xam ne États-Unis la jógee ah. géejooy lañ koy jaay waa géejooy ko àndoo waaw léegi alaaji tournons cette page <laughs> tubaab fu mu dëkk tubaab non non non ba dëkk foofu ma mel la dëkk euh, kii Massamba euh, Touré euh, dafa réer le jarbaatam dégg nga loolu Ndeye Yacine ñang ci ñetti at mooy kii gone la di Euh, Yacine Touré mooy euh, ndeyam Moussa Moussa Moussa Moussa Moussa di bàyyam euh, waaw ca booru Cambérène 2 ku ko gis nag na nga woote ci 77 972 99 05 Pape Alé ah, Mamadou Lamine Sonko nee na daay réer le moom it fra lan la réer le nii IPS am hmm. diggante c'est Grand Yoff koo gis daal na nga woote ci 77 375 28 41 Mamadou Lamine Sonko léegi foo ne nii foo ne maa ngi foo Sacré-Cœur 3 aca demal ma gis Ah, voilà, merci beaucoup. L'acte du trafic de Wayne sur la radio City FM, sans que nous sommes passés sur la BDN en provenance du côté pont Génégal-Japon, Diarcy, Mathias, Saint-Lazare, vers Sacré-Cœur 3, Poplier, amul Ben, Djafé Djafé. la voie est complètement libre mën ngeen fa jaaree daal circulation rawatina Nak, ñi nga xam ne ñoo bëgg toujours sur la BDN, daal directement rond point bu Seydou Nourou daal foofu la aussi pas de souci ça circule tranquille bu dee nag ñi nga xam ne ñoo du côté Wakam en passant au niveau de l'ancienne ville foofu la day ji amul la voie est complètement libre mën ngeen jaaree daal di wees instruction wala sax ngeen wàcc sur la VDN donc euh, bëgg war rond point bi amul benn jafe-jafe ginnaaw loolu nag bu ngeen waree rond point am ngeen possibilité soit rek ngeen dal deux voies sacré cœur mu ngi leen yóbbu di côté rond point boulangerie zone foofu la aussi amul jafe-jafe seulement rek la ngeen war rond point bu boulangerie zone moo am quelques lenteurs bu ngeen ko dépassé donc mën ngeen dalal aussi deux voies yi nga xam ne mu leen yóbbu di côté rond point UVC foofu la aussi amul benn jafe-jafe c'est complètement libre pour l'instant élage yàlla na xel dee léegi. <laughs> xalaat yëpp alaaj bu ko làmmi doon wax. Ah, ah, ah. du baax de du baax de du baax du baax. yow mii kanam kii alaaj bi yéeg ba ñu wàcc. jëm sixième. non la réew mi dox. alaaj yi ñëwaat tële. <coughs> doxul de. dafa doxul. doxul. day takk témbe. waaye lii kenn xamul. am na ñoo xam ne diggu yoon bi sax defaguñ ko. ñu dese moo bari. Euh, euh, Zubair. doxul kii moom dafa ëppal. Euh, kaay ci ma Savez-vous ce que ressent une femme durant son rituel beauté Ce qui motive ses choix, son attitude. La beauté d'une femme est d'abord naturelle, vive et explosive lorsqu'elle est révélée au grand jour. Mon rituel beauté, c'est le moment où j'entrevois la façon dont je souhaite être perçue. Ma seule satisfaction, c'est de me plaire et par la même occasion d'être appréciée autour de moi mon rituel beauté, l'élément principal, c'est mon lait de corps. Il hydrate intensément ma peau, révèle l'éclat naturel de mon teint et je reste fraîche comme jamais. Mon lait me garantit souplesse et confort grâce à sa texture onctueuse et non grasse. Mon lait de corps est le soin par excellence pour les peaux noires et métissées. Sa formule est riche en vitamine E et en huile d'amande douce. Il est aussi très efficace sur les hommes et on l'appelle You Perfect. caramel lu bees tax ma ne la vitale caramel ba day dikk na neex lool nag teg ca sell tamit teg ca mais vitale bu bees fa dikk na de eh, maa la wax li lée vitale stérilisé ma ne caramel ba la am na nag ay biteel cinq cent millilitres ak deux cent millilitres ba nag ma ne baax na ci mag baax ci ndaw vitale ñëw askan bi bég na maa la wax li lée muy meew mu sedd guy wala bo meew mu tàng jër tànn sa la neex la foo leen dem ci bitigu ndakaaru njaay jël joo fekk fa nag vitale caramel bu bees bi éwa eh samba maa la wax li ak ci région yi kay waaw waaw ma ne meew vitale caramel bi amul fenn Vitale kay nak mom bo beugé dégg dëgg ah moo fi né Vitale le lait des champions salaamaaleykum sëñ bi na ngeen eh, lan ngeen di jël non mais attends je vais vous proposer jollof chicken jollof chicken bien sûr pooji ganaar la yu saf-saf yu ñu saaf ba mu ñor Amna, na ay laaf

leen jàmm la décompte 5000 francs mais waouh, ak bouquet canal plus promo noël bi tàmbali na te du jeex décodeur HD canal au prix exceptionnel de 5000 francs installation bi ñu may la et c'est accessible à toutes les formules Waouh, waouh fu leer laa ko teg te formule yépp ngay gis laa lay wax nii de waaye lu ngeen di xaarati daw leen gaaw ci boutique canal plus yi ak suñu stand ngeen profité ci décodeur bi ci ay njëkk yu ñu wàññi ba junni dong ba noppi ñu may la installation bi nga am accès ci formule yépp mani kaana bàyyi kana canal plus rek ngay seetaan suñuy condition xool ko ci boutique canal plus yi ci kaw njëkk yi des yéen xam ndax da ngeen bëgg loolu nga xam ne moom moo di téléphone Samsung wala Tecno wala iPhone wala ordinateur wala congélateur wala télévision wala lépp luy produit électroménager équipé wu leen ngeen koy fay à partir de 4400 francs par mois juumu leen de ngeen koy fay à partir de 4400 francs par mois société Solink ak ay partenaires financiers ñoo leen di gunge ne bépp salarié xoolal li nga bëgg appelez-nous au 77 669 16 49 77 669

yéen électriciens yi ak yéen ñii di professionnel du bâtiment ak particulier yi xibaar bii yéen a ko moom waaw waaw bu leen yàqati seen xaalis di jënd leneen lu dul orange bii di Sosenap maa la ko wax ndax mooy bi gën tube orange bu Sosenap longueur bi 100 mètres lay def teg si ñu defaree ko mu respecté teméngoo ak norme internationale déedéet kay ma dolli tube orange bu Sosenap lu wóor la ñu ko liggéeyee te mu ànd ak qualité roy du nuroog pire te kat déglu leen ma bu baax saa boo leen jëndee tube orange na ngeen xool bu baax

Vous adorerez Minute Maid, la générosité de bons fruits au goût de votre choix. Savourez la générosité fruitée de Minute Maid au goût pomme mangue, tropical, orange et ananas pour bien démarrer la journée ou comme simple délice rafraîchissant. Le bon goût de Minute Maid est désormais disponible en canette pour seulement 300 francs CFA. Appréciez la générosité fruitée naturelle de Minute Maid. bâtiment manti am ku bëgg sa kër nice wala ngay tabax bëgg finition yu rafet waay génne sa bâtiment dawal gaaw uti peinture king bayan ñu koy woowee peinture king bi buuru peinture yaa ngoog ay peinture haute gamme bu la neexee raxas ndox jógee nag ba Angleterre bu tilimee nga fompaat ak ndox bu tawee ci kawam mu gën a rafet mel ni bees ay peinture acrylique la bari col neex a liggéey am na couleur bu la neex lépp d'état l'emploi la ñoo ngi koy détaillé ci kinkaayri yi leen ñu libéré leen lépp ci Sénégal ñu ne numéro téléphone ba ñaata la xanaa 77 796 49 49 77 796 49 49 wala nga xool ñu ci Facebook bi King Ben Sénégal dama ne buru peinture yaa ngi Zik FM. voilà su meer eh, nañ continuer yaay booy xool mu mujjee ak doom ji. léegi yow beneen instant lan nga bëgg moom mu ñëwaat wala da nga bëgg benn instant ku la jàppale. parce que sonn nga ku ma jàppale daal waaw ku ma jàppale. ku ma jàppale daal moo ma taxoon a jóg ndax wax quartier bi ma dëkk sax xam na ne sama doom damaa dumóoyu dañ koy toog sax di ko wax quartier bi ma xam xam na ne waa bu ma doon dumóoyu du ma ñëw ay sept heures laay wàcc bu guddi jotee cinq heures ay sept heures laay dugg sama kër te laay dugg di ñëw waaw at ma dëkkal sax xam na ne xel na sama doom damaa du mooyu waaw. léegi léegi yow yow ban liggéey ngay liggéey jamono ji ñu nekk. xanaa ñaan waaw ñaan ndimbal du ma sàcc du ma njaaloo du ma fen ma ma yàlla ñi ma xam bari na ci dëkk bi waaye maa ngi toog buntu ko sëñ Mbàkke soxna Lo taa taala moo ma laabira foofu ma dem toog fa. waaw sa mi ngi yor lu jeex yow mi nekk yaayam. ngay yi di wër si si oto yi. wala si buddu kër sëriñ wala si. wala si allah ni ci sama ginnaaw ñëpp ñu ngi topp nii kii mu ngi nekk Gàmbi kenn kaa ngi nekk Kër Samba Baas kenn kaa nga fa waaye ñoom ñëpp am nan waaye kenn du ma yumati bañ nañ ko sax ba bu ñëwee kàcc bi nga xam ne moom nan na fekk si danaa leen yéen bu leen gisee ba màggal ba magal la lu tax du ngeen toog sax ba ñëw seet si ndaw si kenn musuma cee defal bañ na ko boo leen doon woo sax dañuy tëj seen appareil defe na xaalis nga leen di ñaan barkab Cheikh Baye góor man maa la wax lii. kon yow benn benn instant bu fekkee euh, ñaanoo doo am loo lekk. bu fekkee ñaanoo doo am loo dundal sa njaboot. sa sa say mbokk ñoom ñu ngi yoon lu dul jeex. ñu ngi lu dul jeex waaw ma. mais est-ce que dem moom daal li na mer a mer a mer moom ci wàllu boppam dañ ne mi ngi kajoor. mi ngi kajoor waaw kajoor la demal lu mu fa doon ut. sëyab dox dajeeg nangam nangam nangam loolu daal na ñuy jàmbat ñoom ci seen jëmmi bopp waaye li ñu yor donc déedéet. waaw ñoom dañ la mere ñoom bu ma déggee dañ la mere. parce que da nga toppoon li nga xam ne mooy ndigalu waajur da nga toppoon li nga xam ne mooy ndigalu sëriñ. waaw kay ñoom ñoom peut-être danoo d'accord li nga def. waaw voilà loolu moo tax ñu mere la. waaw kay looloo tax nag looloo tax dañ ne askanu ñeeño fi ñu fekk kenn fekkule fu baax nañu bokk ndax askan nu ñeene woon lan ay bokkam kenn mësu cee taxaw ci jumaa mbaa kenn mësu cee tubrank kenn mësu cee torox moom mu dem topp ci ndigalu sëñ bi ba waaxu dem di uti kajoor di dajeeg nit mu du ko tuural njaboot looloo leen nit te mujj na sax am na yoo xam ne la ma dal sax duma la ko wax ndax rus naa ko wax ci bilte ci ci portable nit ñi di ko xam. non di nga ko wax parce que bu fekkee da nga bëgg sa sa problème ñu fajal la ko. Euh, pare nga ñu fajal sa problème. waaw waroo am looy nëbb da nga war a wax lépp mu leer parce que da am ñoo xam ñu ngi lay diglu te suñu la diglee mën naa am ñu ñu ñu jàppale la man naa am tey jii lépp loo amoon problème. dañ cee tëj sama pour sax dañ cee tëj sama njur. dañ cee tëj sama njur ñoom ñëpp ñu ci tëj sama njur fi mu ne te dañ ko doon nëpp sax waaye dañ na lii bu feeñee gàcce dina am ndax kilifaa ko def waaw kilifa ci wàllu boppam moom moo ko def dañ cee sax sama njur xanaa biñ la koy def boobu yëgoo ko déedéet booba feebar naa fi sax ba mujj dem ban demee ci sëñ Abdou Fatah moom soxna Fatah de dana lii mënuma koo faj demal faj di tëbal fay lii lan ma mujj wax waaw kon dana liggéey daal maanaam affaire yi affaire di liggéey la daal ak tëj sa njur pour ku la góor gu la takk doo ci am dara loolu nan la def même leer na jumaa ja tey buso buso yi ñëpp la leer waaw ñoom ñëpp la tax nu bàyyi ma jumaa ja buntu ko seen bàkk sa ma di fa looloo tax waaw looloo tax sama bokk yëpp ñi jàngal école am ni ne daaru ko sa ñëpp ma di mooyu woon na Cheikh Baye ko danaa rakk di li mu yor donc mën na koo dimbali waxtu maa mais est ce que pare nga pour pour yoon li ngay jël li nga bàyyi ko pour topp leen ci ñoom liñ bëgg kan ñoom est ce que pare nga pour loolu kan moom waaw boobu ndax buñ ma ko bu fekkee ne dañ may dimbali kon du ma fa toog samay naw la di ma romb yaa ngi de kon bu nu ma buñ ma doon dimbali kon du ma fa toog ñoom ci wàllu boppam dëkkandoo yi sax xam nan ko waaw dëkkandoo yi sax léeg-léeg dañuy tibb ndeysaan ak ni ma ni ma làngal noonu dañuy tibb sax ñam ndeysaan di ma koon jël dañuy tibb sax ñam di ma koon jël te xam nga loolu mbañum rus la te man itam ñeeñu bu set wicc laa ndax sama bàyyi toppan seex bi da ba am ngërëmam bokk ku di askanu ñeeñu ci mbàkk gii da sama mbokk nga waaw loolu nag moom ma toppa ndax ñu ngi ma teg njaboot teg njaboot ay jàng yoo xam ne bu taxoon fi nga waar ñu ngi ca kër ga toog waaw léegi saa liñ ko ba nu baax ay nit jàppale nan ma ba ma defaral ko dem ba def courant bee nuy wax mataar caam kii jaay gaaru sudaaru moom moo jël xaalisam def ci mataar defar ko ba mu set ne la toogal fii xale yi ñoom na seen bàyyi nag peerab dàll bi gën a tu musul koo jënd andi leen ko du peerab dàll du mbub du dàll du dara ku ci wopp nu defal la sabdu sotti yàlla mu ñooñu laa leen di faje ba ñi mu toll nii bërki dem ba ñi paa bi ma dëkka sax ndeysaan damaa yëram ba nee na kenn ki la dem liggéey ñoom itam nu am ci yërmande kenn ke di fayeeku ñaari junni ak juróomi téeméer moo tax noonu ñu dem di liggéey waaw ñoom ñu liggéey moom waaw kenn kaa ngay dem di liggéey kaca des kaca def ñu moo nga fa toog bu ma foree dara ci kër yi ne ko ne am dama jënd mburu dama dawal dépasse mu daa dem def dépasse moo rakkam waaw waaye moom ci wàllu boppam dërëm jàppalewu ma bu ma ko dee woo sax bu ma nee ma jox ma mën ma xaar ba weer wi dee bu weer wi dee France daal léegi daal euh, nga baal ñu fàttali ñu tur bi. ak fi nga dëkkee euh, wax sa dernier mot. Euh, maa nga dëkk fële Mbacke Bari boori waalu ko Mbacke Bari boori wa euh, fële waalu ko waaw maa ngi tudd Ndey Jum waaw waaw foofu laa fo Ndey Jum waaw kii moo leen di yàlwaanal moom Mamour Seye mii moo yor laxasaayam di dugg ci kër sëñ Touba bi di dugg kër sëñ Mbacke Soxna Lo di dimbali xale yi waaw bàyyi loo mais ca wetu jumaa ji moo leen daan ba léegi ma xam ne bu ma wëndeeloo gone yi mën na leen a tëddee maam ci gàcce moo tax ma bàyyi leen ci kër ga waaw seen daaru ma naan ki seen Balla waaw. baax na baax na daa koy jërëjëf waaw. cee yàlla cee. Hmm. en ndaw si dee alaaj hmm. ah en tout cas critique am day kaana. waaw critique waaw loolu critique am kaana. li xale yi naan kaana xaw ma ka am critique la. loolu critique am kaana. loolu loolu loolu. Ah, en tout cas daal. neexoo naag mbokkam yeeg neexool ak mbokkam yi alaaj. Hmm. moom daal xam naa daal bëgg na daal mbokkam yi daal dimbali. dimbali solution bi daal man na ma jàpp mooy. waaw waaw na ñenn ñenn génn jéem ko dem nag indiwaat ko ci ay mbokkam. Hmm. Hmm. wala. Ah. man lii laa ci xalaat kat. ah dox mbokk de tuyaaba bi ci ne moom. ma ne gémmiñ gi xeeñ doomi ndey nit mhm. da dem jege say mbokk. Mhm. wax jaa ngi noonu. mais ay jafe-jafe. boo jaaxlee ñu mën laa dimbali. Mhm. waaw dama gisoon def daal ak waaje keroog maa ngi mun suur ñoo fa damaa ñëw di jébalu. mbaa sa ndey sa baay jox nañ leen digal. dégg nga. noonu la demee woon de. sama baay baay Alaaji Babacar Touré. bu Daaru Duwaan. ndeysaan. doomu aadama. waaw léegi léeg nga wax ko am ñoo xam ne alaaji dañuy taxaw di la weddee. Mhm. man loolu ma jaaxal. muy. doomu aadama. Mhm. dañu koo tabax ni ni ñu tabaxi kër. Mhm. mu ne nag waajur yi. alaaji. mooy fondement bi. dëgg la waaw. alaaji de. maa ngi lay déglu baax a baax. yëkkati say rang. teg say lento. dégg nga. waaw. roof say poto. ba kuule. alaaji. nga raax. nga raax. ba defi bunt ak rido. nee lii moom mooy ay waajur. ci doomu aadama. xanaa ñii ñoo def lépp. waaw sëriñ bi ngay ñëw nag mu lay ñaanal. ci baatin. Mhm. nee na mooy karo ya peinture ba. jékki-jékkal finition ba daal finition ba taaral la. fekk na lépp noppi. Mhm. fekk na ñooñu teg la loxo ñàkk laa teg loxo. yow am nga foo fanaan foo dugg te am nga foo fanaan te yaa ngi ci sécurité. teg la loxo ñàkk laa ba fajar ne péré. te mhm. kenn la xamal dara. wax na dëgg. kër ga même bu dee peinturuñ ko wala raaxuñu ko tam. Mhm. wallaay wax na dëgg. roof nga say bunt ak say rido. wallaay wax na dëgg duggatu la. papa ak ndey alaaji. nee nañ la nii nguufaanoo nañ la. wallaay wax na dëgg. korose la. te mbir ma nag ma nga tàmbalee sax ci biiru ndey. yaay booy mi nga xam ne moo la fa téye juróom-ñeenti weer. Mhm. dégg ma de. bu baax mhm. waaye léeg-léeg nga wax ko am ñu lay xam di la gëmloo ne la non ñun suñ sëriñ yi ñoo ñu gënal suñ ndey yi ak suñ baay <laughs> sama ndey bu ne ma defal sama baay ne ma defal sama sëriñ ne ma bañal damay bañ. kooku yóbbu yóbbu la ci siraatal mustaxim mhm. maire bi nañ ko jël jubóole ko ak ay mbokkam mooy dëgg loolu mooy solution bi dégg nga mooy te ndey ak baay alaaji waaw ñoo daan yëkkati mhm. ñoo daan yëkkati tuutànk mhm. ñëw ba ci yow ne la dénk naa la ko yaxam laa soxla jàngalal ma ko alquran wala tegalal ma ko ci siraatal mustaqim yaral ma ko ndax xëy na condition yi may dundee damaa njabooti jigéen lool te toog ca kër ga. jox naa la ko. suñ sëriñ su baax si alaaji. ni ñu ni ñu daan doxalee mooy. sëñ Abdoulaat. day jël mosam jox sañ sooy. sëñ bu jël mosam jox sañ Saali. waaw sëñ Saali jël basam jox sëñ Muxtada. sëñ Muxtada jël basam jox sëñ Fallu. sëñ Fallu jël jox sëriñ du noonu. amul kii moo kii moo makkee. kon kay tuuti na ca yoral ko doom déedéet. déedéet déedéet. moo tax da ngay gis ñu ne la. mukk ci at da ngay gis ñu ne la doomu diw ji. Mhm. ni mu xamee diw. Mhm. Mhm. njabootam gi sax xamuñ ko xamuñ ko ko. waaw ndax moo ko yar. voilà ba pare ki yëkkati jox la. lam la jox. da nga koy gën a gën gën gën a bëgg sax. waaw ndax sas wi yow yi jógee ci yow. ndax sas wi sax ak yéen wi. ndax sas wi yéen wi. sas wi. te nii ma bokkal ku tedd ki. ñëpp la tëb. Mm. alaaji mm-hmm. jox ma bosam ah kon nag bosam dinaa ci rey sans bopp mm-hmm. mm-hmm. wala léeg gis ñu ne ah diw mu diw ni mu xamee sëriñ Saliou de ah diw mu diw diw mu diw ni mu xamee sëñ Fallou mm. yii sëñ bi fekk effectivement moo daan toog ci suufu sëñ bi mu koy jàngal alxuraan di ko yónni di ko di ko di ko di di ko waxi mbóot ñu ko mhm. jàngal xam-xam dénk ko ay secret mhm. waaw mhm. kilifa yi buñ fa ñëwaan mu entre leen dégg nga loolu alaaj ndaje ba mu dajeeg sengoor bu njëkk diw dee ko fekke wallaahi fekk yow sa bos joxoon nga ko sëñ sooy ah, bo loolu dafa rafet waaw ah, kay loolu yëkkati dem joxe diw mu yaral la tegal la ci siratal mustaqim te ñooñu duñ la mës wax ne la sa waajur wee jox ma la dogool ak moom adduna ak alaaxira. déedéet mm, mm, mm. déedéet. duñu ko mës a def doo ko dégg. déedéet du am ñuy dem mm-hmm. léegi bay am ay yonent yi mm-hmm. bees ak. Mm-hmm. ay ay ay ay tarim alxuraan yoo xam ne koy tarim seen lakkaat. wallaahi wallaahi légèreté caaxaan. naa fexe ceetaan non mais. mais da ngay wax sax am ay nit ñoo ay fanatique alaaj ay fanatique ay nit ñoo xamante ni jël micro bi jaamu koo leen gën a yomb ñu jaamu seen i ndey ak seen i baay. waaw mais loolu mooy. jaamu jaamu xel rek. ci seen ak yëfi nag yow nooy amee nday ak baay mu ñu jur la ci faratas yàlla ak sunna ma xam ne ngay topp kenn koo xam ne yow wóor na la ni yow yaa ko gën baay aywa alaaji dama lay wax leen gis nga affaire yi damay topp ko gën baay kay bu nax kenn waxuma ci biile kaa mais de manière générale ah. ni nga téye sa nday rek bu nga gis ni la sa doom téye ah. jeex na tàkk way juddu caaxaan rek ni nga téye sa papa téye ko sa yaay bu ëllëgee rek sa doom téye la noonu kilifa dafa baax ci nit nit boo amul kilifa. pour nga yomb réer. dafay dafay yomb torop dafay dafay woyof ci yow. kilifa dañ koy jox jur dañ koy jox place gi mu yellool. nga toppatoo ko. def li ci lislaam santaane gis nañ fi tës bu ne boo xamante ne waajur yi sax day léegi du ñu am comportement bu exemplaire waaye yow defal sa wareef. ndax ëllëg a tax. dama ne waaw boo toogee ne sama doom daf ma abandonné yow waroo a a xool nag yow itam nan nga téye woon sa ay waajur. dama ne. Mm. <laughs> attention. dama mm. eh. dama ne ka taasukat yi nañu doom jëndee ji dèjà fort. bu koy bu koy nàppal da koy xool kii daal kii daal solution bi alaaji. Hmm. nañu nañ nañ ko na ko ay mbokkam na ko ay mbokkam euh, euh, euh, sëñ bi ci boppam na ko jël dégg nga jubóole ko ak ay mbokkam. ñu tax a soowaat ak ay mbokkam. waaw doomam dikk jàppale ko. Hmm, hmm. ndax doom ja ak lu mu meree nday ja nday ja nday ja nday ja mhm. ndax bu la yàlla nattoo alaaji ñaam ndey wala bàyyi boo xam ne day def naka sudul naan noonu naan ba ne tat ba yàqi sira mari d'Italie yow mhm. la war en tant que doom mhm. mooy jël fat defar ba ba mu set jox mu lekk jox mu naan teg sa bu ëllëgee bu ko defaatee it alaaji nga delluwaat ca loolu amul sonn de yow doo dóor dëgg la sa ndey sa bàyyi doo leen jàpp da leen dóor déet doo leen sànni doo leen xarab ndax yàlla nattu yàlla nu ne lay nattoo waaw nu ne lay nattoo mm-hmm. léeg-léeg mu nattu la cim xarit mm-hmm. léeg-léeg mu nattu la ci doomu baay dëgg la mu lay xas suba ngoon guddeeg bëccëg te alaaji mënoo mm-hmm. dog dret bi léeg-léeg mu nattu la ci doomu ngay dëgg mu lay xas di la saaga waaye dret ja dugg mënatoo ko dog illaa yow mi diin déedéet la ci ndey waaw léeg-léeg mu nattoo la ci mbaay. Mhm. waaw léeg-léeg mun na toll ci mu dëkkandoo. Mhm. waaw te doo ci mën dara. dara. Mhm. danaa jënd kër mu jënd kër. mu nekk nitu tifaar. wallaahi di la ko def suba ngoon guddeeg bëccëg. mënoo jaay kër gi dem. foo jëm. naqari deret loolu nga war koo muñ na. lii supporté dégg nga. léeg-léeg yàlla na toola sax alaaji koo xam ne ci biir jumaa ji lay dem. wallaahi. nooy def da jaay jumaa ji. déedéet déedéet a dégg jumaa ji ne nañ ko jaay. déedéet doo ko jaay déedéet. wala déedéet. wala léegi imaam kii nag di nga wax ci moom wala ma wàccee duñ ko defal. déedéet muñ. rek de. muñ rek. xeetu nattu gu ne. wallaahi moom nattoom mooy. doomam jàpp na ne doomam yàlla xéewale na ko teraanga. Hmm. waaye daal da koo sunobe. multiplier ko par par zéro. Hmm. ba ba ko. Hmm. te moo ci gën a yeyool nag. ci teraanga ci. ah waaw. dëgg la ah, ndax mu métti métti yaay lay. waaye ma ne bu bonoon bay lang. Mm-hmm. yaay la balaa defal kenn moom la itam dëgg la. yonent ndey lay indi ba muy ñetti yoon a indi. waaw yaay du foofu kaay. dëgg la waaw waaw dëgg bi yàlla ji ci boppam daajee nit. lu tax dugalu ko ci biiru ne mm-hmm. mm-hmm. ko ci ba muy juróom-ñeenti weer. day jaaxaan. déedéet. muy wàccu. di miir. di daanu. te am na fu muy toolu bu xasee ba tëddati alaaji. dootul mën a tëdd ndey jooru tudd càmmoñ. ah. doole de ah. fonk ndey dafa am doole ah. waaye waaye yenn saa yi lay lay fil doom ji ba du fonk ndey wala mu sàggan léeg-léeg ndey def ko ndey def ko mais muñ rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen ci diggante ak jëkkër ak jabar bu daggoon weenam sax teg ko ci taal mm-hmm. lakk ko ba mu ñor mm-hmm. def ko mission bu baax jox ko mu lekk sax taxul mu dab ko ci li mu ko war a defal ci rafetal mm-hmm. li mu ko war a defal ci rafetal ci rafetal du du li ñuy wax léegi de ci mm-hmm. jaamu wala nangam wala nangam mais ci ak rafetal mm-hmm. Mm-hmm. waaw boo génnee te tàggoowoo malaaka yi dañu lay rëbb ba bi ngay wàññeeku dañu lay muul moment yi ngiy génne te amoo ndigalu sa jëkkër daanaka mu mel ni jaan sax du la màtt yaa sàcc yam waaw yooyu yëpp nag mag ñi bu jëkk jigéen da daan dugg ci kër bu soob yàlla fii wàllu yi laa fiy jur. Ah waaw parce que xam naa ni fii. Mhm. dinaa fi jànkuwanteeg coono. Mhm. dinaa fi jànkuwanteeg mutit dinaa fi jànkuwanteeg nangam dinaa fi jànkuwanteeg nangam. Mhm. waaw waaye loolu yëpp ci yar gi la nag waaw yar gi la malheureusement léegi dañoo yaratul nag léegi nag xam nga euh, yaratuñu nag tamit moo tax xale yi bu ñu màggee tamit dañuy jël seen yoonu bopp dafay yomb ci ñoom trop ah. yar gi dafa am solo de alaaji yar gi ci comportement yar la ci diine nga xam fi ngay taxawee bu ñu naan bàyyi na fi fukki soxna ak benn. wala moom la moom moom la jot a am. waaye bindkat yëpp juboon nañu ci ni bu Xadija deewul woon. du am keneen. ndax daanaka Xadija moom bu jabar jotee mooy jabar bu jëkkër jotee mooy jëkkër. bu yaay jotee mooy yaay. waaw yooyu moo tax it. njabootu yeneen bi yëpp moo leen jur. yomb waaye ñu góorgóorlu ci rek. waaw doom man de dama koo bëgg a roy ba bëgg koo roy ci ni mu daan woowee yonent bi Habibi. Habibi. Habibi. rek. fekk ñu fekk daa fekkoon nag laataa boobu ñu koy woowee al amin. macha allah al amin mel waaw cëm. yonent bi noonu ñu ko amoon dafa amoon dafa amoon dafa jubóo buur ba. Ah. milliardaires yi nekkoon màkk ku am sa dénk moom nga koy dénk ndax ni nga ko koy joxee ni nga koy jotaate te boobu ab sàmm la. dëgg la. nekkite. nekk day jéeg banque seetlu. Mm. di ko xool rek di ko xool ci taar bi di ko xool ci doole ji di ko xool ci kantan gi. yonent bi njoolu woon ba ni sol gàttul ba ni duguj pataawul ba ni muq siwul ba ni ruuj kooku gis bëgg ko bu signé ba ñuy sàkkar yàlla bi di melax bu la wanee ginnaaw muy melax njool na am na dënn am na taay am ceene am gabari am ceene am ibdu nek jantal nag mooy original jantal nak xam nga doole sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa kenn du moom déedéet lu nit doon màgg weer benn fan la koy màgg lu nit di màgg at weer la koy màgg sallallahu alayhi wa sallam nekk koy seetlu di ko seetlu di ba ba ne ko kii woon daal yow la nga doon da ngay sàmm ñu lay fay dama laa bëgg recruter nga defal sama ay petit commerce mu nangu mu boole ko benn mbindaana bu tudd may sara muy mm-hmm. ànd ak moom di dox waaye may sax seetlu na ci yonent bi ni daawul am taq ndeer seetlu na ci yenent bi ni bu naaj bi tàngee ba tàng moom day am parasol bu koy tiim du yëg tàngaayu jant macha mu nettali ko soxna si mm. mu commencé nag gis ay mbir waaw ah, tubaakàlla moo tax it ba jël jotee jël na ko mu magee yonent bi fukki at ak juróom quarante ans moom vingt cinq mm. waaye ba ñu ci duggee ah loo ci gis loo ci gis ba distinction jotee ba yonent bi ba yonent bi dem ci dem xaar euh, euh, xaaru xiira di fa laqatu. Mm. boobu mënoon na ni mënoon na ni kii sama jëkkër nekk xale bu tuuti ma koy soxla war koo gis muy laqatu ci ay montagne te gis na mami. Mm-hmm. xaaru xiira dee ko dégg nii nag de. Mm. juróom-ñetti téeméeri mètre la ak nangam ca kaw. yow boo xëyoon fu nekk tax nga yegg fa yow moom mënoo faa yëg yow. mais man man waxtu yi nii. midi mm. du tax ma yegg premier sax du ma fa yegg di tëdd di tëdd ba Jibril fekk ko fa mm. mais bi mu dawee ñëw itam bu doon suñu jigéenu tey dañu naan ah nekk ci ay montagne di làqatu mel ni ku ko tey di nga jëm da ngaa jommi waaw mm-hmm. mais ci tamise bi mu am ràññee gi mu am la ne xaaral ndax malaayka du gis bopp kese bu dindee bopp bi yonent bi ni cocc mu muuruwaatee mu gisaat leeru Jibril yi mm-hmm. mu ko yàllaay nuyonte ak yow yooyu jigéen yooyu eh, jigéen day jigéen du ma xam. dëgg la. sallallahu alayhi wa sallam. yal na yàlla dolli sutura. miin yal na nu a jàppale. yal na yal na nu yàlla taxaw. yal na nu yàlla jéggal yal na nu yàlla musal. yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mm. ah alaaji ñu jiite yal na leen yàlla xare àjjana rek. yal na ñu feebar yal na yàlla fëgg seen bopp. amiin waay. ñi nga xam ne ah, caabi da leen a féete ginnaaw it yàlla leen fa yàlla génne. amiin yaa rabbal aalamiin yàlla dolli sutura bi. amiin amiin ah laaj dañ. cité Aliou Sow de noonu am na fenn fii benn kër guy lakk. cité hmm. Aliou Sow. Ah. benn kër guy lakk. Ah kii yooyu yónnee message sax nee na ma am na ku ci benn gone gu ci jot a loru. waaw oh. ah, na ñu dem vérifier ji gaaw information. waaw loolu sax la vérifier masa masa ndeysaan. ndeysaan ndeysaan. yàlla yemale foofu rek. ndeysaan amiin amiin amiin. loolu de métti na. loolu métti na. sëriñ Mbacke maa ngi lay waaye sama xaritu bu tege bii def nga xox. waaw. na. waaw kon mbokk yi moo nekkoon nag euh, ci xarale gi ajaratu bu jigéen bi nag kii euh, ay yite suba dina dikk. waaw bu amul woon dama delloo ma dellu si sama bosoon suba. kan si meen xanaa waaw waaw waaw miin màkka miin miinatul mu noore da alaaji Mansour Diop laa dendal ni lée ana ñoom nag lañ dendal surtout ku tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine andaa si man ni xo dee sëriñ Ahmed Aïdara Kara muy maire ku baax c'est le maire de la ville su maire dañoo bëgg a rey te du ma ko nangu alaaji tey nuyoo waa Poufoundé non non suba nuyul waa ñoom rek tey waa nuyul waa ñoom rek non ñoom rek dégg naa leen day ci suba teel gi ah, waa Poufoundé moom suba incha allah rabbi dinaa wut dépense xool week-end bi du may demee puufu. Càmba Diop sama rakk voilà di leen jokkoon dig daje. non non loolu suba la. di leen jokkoon dig daje suba incha allah.